Cheikh Tidiane Sarr la <coughs> bu daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat <coughs> euh, tey dañ fi daje ci champ de course comme niñ fiy dajee at mu ne pour bale course bi pour bay ko pour setal ko ngir waajal guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ci suñu ndigalu kilifa Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha si suñu responsable moral yaa ngi wax ne daanaka ba sept heures di jot fekk na course bi set wecc course bi di hectares la waaye bi sept heures di jot bay nañ ko ba daanaka gisatoo fi ñax loolu nag li muy tekki mooy njaboot gi nga xam ne ñoo doon def loolu seen pas-pas seen engagement seen détermination seen dévouement ngir yàlla ak cofeel goo xam ne nii ëmbal nañ ko seen kilifa Serigne Moustapha daf ñoo jàngal ne ku naxul sa kilifa yàlla booleel ak ñu la dul nax moom naxul kilifaam moo tax yàlla boole kook njaboot yu dëggu yu takku yu am pas-pas ku fi ñëw tey rek sa xol sedd na te it bi ci des mooy kenn yëgu fi coono ndax jaaltu lahu xubbi makaana shikaayat yi am na koo xam ne boo koy liggéeyal cofeel gi nga am ci moom moo tax doo yëg naaj wu tàng doo yëg diis diis benn mbokk ak ma naan bari na fi ñoo xam ne ndakaaru lañ juddoo ñii juddoo feneen ñii juddoo Cees ñoo xam ne nii mosu ñoo xam luy gopp mosu ñoo xam luy rado waaye biñ ñëwee fii bi ñu ko téyee dangay yaakaar ne loolu rek la ñu xam ndax booba pas-pas mooy liggéey waaye seen man-man liggéeyul loolu nag dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ngir ne lii résultat wu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy la moom moo jëmbët ci njaboot gi cofeel moo jëmbat ci njaboot gi yitte moo jëmbat ci njaboot gi détermination bi nga xam ne nii moom la am bés bi nag dafa nekk actuellement ci agenda wu daayira bi bis bu am solo muy bale champ de course bi te ñaari mbir daf ci daje muy ñëw liggéeyal sa kilifa muy suñu responsable moral beneen bi mooy participer ci waajal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay wax ne daanañ dégg fu mel ne njarnde mag ñi dafa daje di bay ñu daan dégg fu mel ne bulal mag ñi di fa daje di bayal Serigne Cheikh tool loola amatul waaye sëñ Moustapha jox nañu occasion bi chaque année ñu daje fii ci champ de course ku ci nekk jël sa gopp pour barquer ci coono mag ñooñu ñu daan dégg te yàlla ñu chance bi loolu ci mom lañu ko joxé kon nak ñing koy sante bu baaxa baax diko ñaanal yalla yàlla na ko yàlla yalla yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko may wax ne bu dee wal wala ñun suñu gamu commencé na dembu ndax euh, euh, dembu amna cérémonie bu am solo cérémonie d'ouverture checkpoint Céleste bi nga xamné initiative suñu capitaine la mam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nga xamné occasion la pour revisiter revisiter penser wu ñi nga les illustres maîtres de Tiwawan. Seydil El Malik, Malik anhu le fondateur de la Zawiya de Tiwawan, Serigne Babakar, son digne fils et héritier Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum Cheikh Seyd Mohamed El responsable moral donc Mme Cheikh capitaine ci euh, ci initiative avons euh, def un programme qui nous a nii ñëpp dañ leen 15 jours yi nga

Euh, à cet événement. C'est un événement maintenant, le désherbage et le nettoyage du champ de course. Le lieu qui doit abriter la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous, la furule et sous la conduite, sous la présidence effective du responsable moral, Cheikh Seydi Mohamed El-Moussafassi. Avant 7 h du matin, les champs de course qui sont d'une superficie de 10 hectares ont été déjà complètement nettoyés par des fidèles déterminés, engagés, dévoués. Cela euh, témoigne, s'il en était encore besoin, de l'amour, de l'affection que ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces personnes même du troisième âge portent pour le responsable moral, Cher Seydi Mohamed El-Moussafassi. C'est inscrit maintenant dans l'agenda du Dairetul Moussarchidin wal Moussajat, cette journée de nettoyage du champ de course. Et aujourd'hui, on est très satisfait parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir, ils ne vont pas trouver quelque chose à faire ici parce que le travail a été déjà fait et très bien fait par des jeunes engagés. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire à l'occasion de cette journée. Les activités ont commencé hier. Cette année, il y a une très belle initiative prise par euh, Mamcher Ahmed Yansi, capitaine, euh, qui, concerne, qui consiste à organiser euh, des séries de rencontres, d'activités culturelles, d'activités commerciales, euh, d'activités artistiques pour rendre hommage aux illustres maîtres de Tuawan. Euh, rendre hommage à Seydil Haji Alixi dont on a fêté tout récemment le centenaire de sa disparition, revisiter sa pensée, sa philosophie, et aussi, mais aussi la pensée et la philosophie et l'héritage mystique de Serigne Babacar Sy, anhu, de Serigne Cheikh Ahmed Tidjansi et de notre très cher responsable moral. Donc c'est une très belle initiative, c'est pourquoi nous disons que nous, notre gamme a commencé depuis hier et nous allons continuer dans cette ferveur jusqu'au jour J en recevant le maître ici, le bourde aussi chaque jour, on va, on va réciter, il y aura un récital de bourde jusqu'au jour J où on recevra le maître qui va venir encore nous gratifier de ses enseignements sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dans les champs de course.